Nivea ak i gaamam savon wala parfum Optique Vision Plus Sénégal ñoo leen di may seen émission xalaas jërëjëf euh, jërëjëf Amady euh, jaajëf Yacine Pouy jaa ngeen jëf auditeurs yi ak internet yi ñuy bàyyi xel euh, ci seen rajo RFM 94 point 0 yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg ba tey Mamadou Mohamed Ndiaye ak Passepartout baan yaakaar naa ni ma nga réer biir Touba ñëpp a ngi ko seet Ndiaye maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar Ababacar nuyu la bu baax maa ngi nuyu Passepartout maa ngi nuyu waa Sénégal di ñaanal ñëpp jàmm. jaajëf jaajëf am kër ngeen raxas seen loxo corona ba ba tey te yow Ndiaye fu ngay dem ah Fass <laughs> Fass maa ngi lay ziar bu baax. sama waa maa ngi lay delloo di di ziare Ndiaye bu baax di auditeurs yu xalaas yëpp ak internet yëpp di ñuy suivre ci Facebook beeg fépp ñu leen di ziar bu baax <laughs> fépp fépp la ñuy suivre. jaajëf jaajëf mais ne laay def xam nga Sénégal ku la njëkk a yeewu rek jugal sël ba xam naa. xam ne ma avant yow fu ne ngay dem. waaw bu ma yeewoon ne la fu ne ngay dem tamit yow parce que ñun daje. déedéet yow sa sa màjjal gi nga nekkee. baax na dëgg la de dëgg euh, ah, mu wax nga ni. abaa mooy li ñu commencé woon démb. Mhm. sañu waa ji ñu euh, euh, un million neuf cent. te ki ko doon sang. waaw. mooy ki fi doon nettali ne dafa am ku ko woone ko dama paan ci àll bi. waaw xam nga histoire bi yeggul. auditeurs yëpp a ngi wax nañ ko yeggale ndax dañoo comprendre. li ngi yemoon daal ci fi mu ne. bi mu ko joxee garab bi mu sangoo ko ay quelques jours après. Hmm. waa ji di ko di ko laaj xaalis. lu mu ko laaj. mu jox ko mu tàggoog sagom di mu wuti ko. nañu reprendre kii soir bi mu gën a wóor. ñu déglu so dafa am benn jour fi ma doon liggéey ay booru timis benn xale bi góoru bippe ma. après ma woo ko mu ne dangaa ma ne ko dangaa juum après ma coupé mu waat ma mu ne allo sabaa mu coupé rek. après mu envoyé ma rappel ma woo ko ma ne Serigne dangaa juum. mu ne noono non ma sax. nga baal ma rek daa am li ma bëggoon nga jàppale ma ci ma ne ko lan la mu ne sama papa moo ma yónni te àllum tàmba bi donc damaa xaw a paan te aw ma crédit nu ma koy woowee ndax man nga maa envoyé crédit ma ne ko instant bi mënu ma la envoyé crédit parce que jour boobu taw bi njëkk ñëw Dakar jours boobu la woon. ma ne ko instant day taw mais bu fekkee ne ma sa numéro papa mën nga maa jox ma woo ko mu ne jëlee numéro bi après ci laa woo paa bi ma ne ko yaay diw mu ne waaw waaw ma ne xam nga diw mu ne wa xam naa ko kay. ma ne ko mu ne sama doom la ma ne ah dafa maa woo léegi de mu ne dafa paan ci àllum tàmba bi fi nga ko yónnee dafa paan mu ne loolu dëgg la kay kon maa ngi lay jaajëf maa ngi koy woo léegi léegi. ma toog ba deux jours trois jours paa bi woo ma di ma ñaanal ni ni geste bi ma def Maolin ñoo ko bokk àdduna gaañ dara jaru ko quoi loo fi gis rek jàppalante la. xam mu toog ba ci yaakaar tamit mu waat ma tamit di ma ñaanal di ma ñaan di ma ñaan ba benn jour mu waat ma tamit mu ne franchement li nga defoon ba léegi fan gënu sama xel te bëgg naa la jàppale bis ni ki man Serigne laay ndongo daara laa te dëkk bi tamit ma maay kilifa dëkk bi xam wax ma loolu ma ne ko amul problème man tamit ku may jàppale rek laa bëgg léegi mu ne dinaa la boole ak sama benn taalibe mu indi la garab Dakar après garab bu egsee rek man de nga woo ma ma wax la noo koy defee léegi bu ma ah, booy bi ñëw taalibe bi ñëw bu ma ñëwee jox ma garab yi ma sangoo su bu ma sangoo ak garab yi nag ba eh, ba keroog samedi amatuma jàmm sama yaram day dee sama kaw samedi ba samedi passé ba samedi passé bi sama yaram bi depuis jour mooy joxu garab yi ba samedi passé sama yaram bi amatuma jàmm damay tayal damay tayal lépp. mais indi garab bi woo nga paa bi paa bi wax la nooy jëfandikoo garab bi. bien sûr woo naa ko kay mu ne taalibe bi egsi na mu ne alhamdulilah rabbil alamin nga def ah, nga sangu ci 3 jours. ma def ko nag bi ma ko defee ma ne ko def naa ba pare léegi bi ma ko defee lan la tamit 3 jours bi mat. ci la commencé di ma wax ma indil ma bii indil ma bii indil ma bii. ay xaalis indil ma xaalis bu ma tey bu ma waxee deux cent mille laa soxla ma jox ko bu cinq cent cinquante mille ma jox ko. di gën a bëri deux cent mille cent mille rek ba ci ay cinquante mille trente cinq mille quarante mille. Mm-hmm. léegi bi ma koy lépp transaction mu ngi sama portable nii Wave ak euh, kii Orange Money. léegi ba ci samedi bi la ma woo mujjee woo mu ne ma soixante quinze mille ma ne Pape instant fu mu nekk nii yoratuma dara ay alal jàmbur laa jël. te man xamatuma lan laa war a def te balaa may wax loolu sax sama benn mag laa woo dëkk ba te kooku sëriñ bi ma ko woo expliqué loolu rek mu ne lii France ba dañ laa liggéey te mu jox ma benn saara mu ne ma tari ko juróom-ñaari yoon bi ma ko tey tey mu ne nga tufle ko bi yépp bi ma ko tufle sama sama xel bi laa ñëw ci laa toog jooy samedi ba le ba le démb maanaam samay démb démb laa laa laa lekk. léegi yow taalibe mboob bi mu ñëwee fan ngeen fan ngeen dajee fan ngeen gisante ñaar. bon mu ñëwee ba Dakar. dafa ma woo mu ne mu ngi Dakar eh, buntu Pikine ma léegi nga jël taxi nga ñëw parcelle boo ñëwee parcelle man dinaa la jël si bu mu ñëwee nag jël si naa yóbbu naa ba sama néeg man ak moom ñu toog waxtaan après mu jox ma garab mu dellu si. am na nga ko fayoon. non ma ko. dara. léegi daal bi nga sangoo garab ba pare ci la paa bi di woo di la wax nga yónnee ko xaalis. voilà. ci laa ma yónnee waa chaque chaque moment di ma woo indil xaalis indil xaalis indil xaalis ba benn jour tamit yaakaar na bon su ma fàttalikoo am na benn jour tamit. dañu maa jëlee fii yóbbu ma ci frontière bi. taal ci sëriñ bi moom ci ma. sëriñ bi moo ñëw wala taal dañu ma dafa maa mu ne ma léegi damaa bëgg suba looy def def nga bàyyi nga fekk ma fale. frontière ba. frontière dëkk boo paasee parce ay mooy dëkk bu tuddi Sénoba. Sénoba mooy fole boo boo boo génnee Gambie. boo génnee Gambie Sénoba ba yóbbu ma ba foofu bi may ma ak nag ñu may dugg ci dëkk bi dañu ma yóbbu ci àll bi rek ñu sangaat ma foofu parce que instant boobu yëpp ànd anduma ko sama saw lu mu wax rek loolu laay def léegi bu ma ñëwaatee tamit jour bi ma ñëwaat tamit jour boobu jour boobu dafa doon taw sax bi may génne taw laa génne sax ma dem ba foofu bi ma dem ba foofu ñu sangu ma ma ñëwaat bi ma ñëwee tamit jusqu'à présent ñu ñu ngi koy continuer ñu ngi koy continuer ba ci samedi bi passé bi laay door a am jàmm sama xel dara ñëw tamit ma ne ko lii franchement du jàmm samedi bi la ma woo sax mu ne ma soixante mille ma ne mënuma ko bi ma ne ko mënuma ko ci laa toog ba ci yàgg amatuma woon dara dërëm amatuma woon boobu ba tey histoire bu mel nii mosoo dégg ñu koy waxtaanee fii ci rajo bi. franchement euh, su ma waxee dégg dëgg man ma may déglu rajo. parce que donc man taalibe laa jàng naa man su ma yeewoo suma sangoo julli rek baa ngi sama course jëlee sama laazim ak sama wasifa yor sama teel di jàng. mais porté nga naa plainte bi ma dem police police ni ñu ma wax ñu ne ko actuellement dama war def le tout possible pour taalibe bi jóge foofu mu nekk mu ñëw fi ñu man koo jàng. ko abaa. xam nga tamit li moo xam na solo. Mhm. ndey lanzim dafa jàng ak yooyu mais na ci boole di déglu rajo di ak di seetaan télé mën na ko ubbil ay yu bari. léegi noonu nga lanzim gi duñ ci def actualité. gis nga gis nga Ndiaye. lu fi yàggoon la. gis nga boo amee xam-xam te yeewoo. xam-xam bi du la jariñ lu bari. alalu borom bari. la jariñoo. te doo jariñ sa bopp. donc da boo yaroo xam-xam te yeewoo. loolu tamit loolu laa wax xam nga tamit njaay loo fi am te yeewoo rek. Mhm. tabarkal dañ lay. mais euh, Aba. Mhm. yeewu muccal doomu aadama bon ginnaaw dogal yàlla. Mhm. mais doomu aadama yeewu moo koy muccal. passe-partout mii bu yegsee ñëw di la wax li mu lay wax. war ngaa xool ndax li mu lay wax lu mën a nekk la gis nga xam nga fan lañ njuuj njaaj ji tàmbalee. mooy nee na waa ji da koo bippi woo ko. mu jox ko benn numéro ne ko woo ko mooy sam papa waaw lu tax waaj ji bippiwul papaam. mu woo ko directement. ah waa ji da laa damaa paan jox benn numéro ne la sama numéro papa la woo ko waaye tax yow ni mu la bippé ba nga woo ko lu tax bippéwul papaam. te papa am na numéro moom su bippé papa. papa dina xam kan la <laughs> léegi imagine toi moo tax ma ne il faut que da nga yeewu am na yoo xam et di la yóbbu fii ba xaw ma. seno ba seno ba di la sang. te Ndiaye seno ba nu mu soree. te gis nga boobu sax boo fekk na mu jekk ko. Mhm. fu mu ko woowoon da ko fay sange boo fekk mhm. na mu jekk ko parce kasay kasoy réew mi bari na mhm. fi ñu fa tëdd ñoo xamante ne ji lii leen fa tëral. yàgg na lii nii parce que li leer ba leer mooy un million neuf cent yooyu du lépp la moom. da koo lépp. lam ca moom matul trois cent mille. munul toog fenn di wax ne dañ maa jekku ci sëriñ moo tax xaalis bi dem duñ ko gëm. amul bu demoon justice pour ñu gëm ko problème la. loolu amul tribunal. kan ngay toogal ne ko sëriñ bi moo ma jekkoon gàllaaj ma moo tax ma ma doon laaj may lépp di ko joxe fay ma lañ lay wax. il faut que ñu yeewu. te xam nga Ndiaye. Uh-huh. li tax li tax xalaas bi mu essayé pour mu jàll. Uh-huh. dix sénégalais. Uh-huh. bu ñu nee jot nañ ci appel yi. te six yi ngi te ñu ci bëri nag xamul li problème bi. ñu ngi déglu waaw ñi tax mu bëgg ñi tax mu essayé pour mu jàll. mooy dafa ci am ñoo xamante ni ñii dañ leen di woo ñu xam ne dañ leen bëgg arnaque ñu ne dañ leen di piéger pour jéem leen a jàppale yooyu noonu bu ñu sax jéem a dugg ci yooyu ñii bis boo fexee ba gisante ak ñoom fàtte nga sax ay wax jàpp. c'est que dafa am ay nit ñoo xam ne dañuy compliqué lu leer daal wax Ndiaye dafa am ah. nit ñoo xam ne dañ leen wax ñi ko ñoom dañoo soof mhm. dañuy compliqué mais ñooñu dañuy naqaree nax mhm. parce que loo leen indil teg boo waxee par dañ naan la alors <laughs> laaj la ba nga yow mi leen bëgg a nax mujjee maar nañ dem ci xalaas bi ci topp non avant bi ci topp benn xalaas express ah. kii benn paala boo xam ne Baye Mbay Fall la tudd ah. dafa yoroon benn wëtiiram xam nga wëtiir waaw calèche. voilà di ci góorlu di ci daan dooleem. Mhm. di ci suturlu. Cees la dëkk. mu jël wëtiir bi gaare ko buntu mairie bu Cees mooy maire bu taalisi la. ñoo fekk ñu yooyu wëtiir ba yóbbu. dañ ko sàcc yóbbu nañ ko kay. léegi ah. Hmm. waaw Baye mbay Fall Cheikh Anta moo ñu jox information bi. Ah. kër Ibra Fall la dëkk. ah baax rek. bëgg koo kër kër rek pour ñu dimbali ko waaye yow mii mënoon làmb sa bopp jox mu jënd beneen wëttir yow mën na la. sëñ Bamba mu tombé. fi mu tombé la. fi mu tombé <laughs> man ba ma joxee laa jeexal abaa fi mu ne xoolal <laughs> yàlla xam na ne de. la doon fayee yàlla yàlla yërëm ko. amiin bu fayee waan passion bi. danaan weccee ko ay mille francs mille francs di ko mayaay ni ko may waa kër gi Ndiaye sama papa demoon na ba yegg foo xam ni bu jëlaan 1000 francs ñoo jëla jox da ngaa ko papa baax na. lu tax 3 mois yi lu ñu laaj sama papa mu ne ah, li ma yoroon yëpp paas laa ko jox te 1000 la la jox léegi nag yow xam naa ne man ak yow foofu la ñu mujj <laughs> ndax li nga ma jox <laughs> heure bu ñu toogee nga ne ma li ma. <laughs> ah man daal da ngaa ñëw ne ma da ngay da ngay màjjal lu yóbbu si kóor yi. ah ma ne la ñaata nga sasoo nga wax ma ko. du ah. ñaata. deux millions cinq cent. ma jël la ma am jox <laughs> diggante jullit ak morom diggante taalibi ak morom fas fas nañ jëm ci. non Ndiaye Ndiaye lancé xalaat bi stop parce que dañ may signalé ne sama micro bi dafa dafa kii lancé ko ñu vérifier sama micro bi. non micro bi baax na. baax na de. Hmm. yaa ngi baax kay. maa ngi ñëw yaa ngi ñëw kay. ah dama gis boobu dañ ma koy signalé. kaay problème mooy da ngaa wan ginnaaw lépp moo tax fi mu ne fi mu ne yow. à l'envers ngay dégg xam nga fa lañ jëm. <laughs> laaj ma fu ñu jëm. fu bi fi ñëwoon. booy bi nekk France xam nga yaay moo fi ñëwoon. Mhm. te yaay ji doon sëy ak benn waay. waaw waaw mais booy bi mu ñëw boppam. kiñ na day sàcc. waaw moo wax. expliquer histoire bi. ba pare def yeneen révélation yoo xam te ne xëy na yaay jiwu booy doon football bal bal bi dugg ci benn kër. ca Casamance booy bi dugg fa. jël fa benn euh, lan la faroon. benn calcul bu am xaalis. waaw ñu lekk ci xaalis bi ñoom. ma nga noonu. non dañ koo jox ki leen arbitré mooy ki ci mag. moo ko jënd ci ay tàngal. Hmm. ñoom ñu coob ci ñu lekk ci. léegi ayca yu ca xew doo ñu wax. déglu ba ayca. bu muy am loolu bu ma nekkee xale la su jugul maa am quatre ans cinq ans dañu doon football si benn terrain terrain bi si école la nekkoon école bu ñu doon jàngee foofu la terrain bi nekk. ay équipe de koñ loon koñ ak koñ la ñu doon football ñu ñu amoon benn grand moo ñu doon moo nekkoon suñu entraîneur léegi bu ñu dóoree bal bi bal bi dafa dem si benn zaaru mbaar nii bal bi dugg fa man maa ko dem jëli. mais bu ma bu ma demee di ko jëli fekk ma fa kenn mbaar bi kenn nekk fa woon si suuf mbaar bi la dugg ma ma sëgg di euh, di génnee bal bi ma gis fa benn sakos xam nga rek xale ma gis fa benn sakos ma foraale sakos bi indaale ko ma indi bal bi après c'est la sac bi ma dem ba suñu entraîneur bi ma jokk ko man ko lii fee laa ko foree moom mu téye sac bi xam naa nag bu mu ko ubbee gis na si xaalis mais boobu ñu dañoo continuer football les matchs bu mu jeexee nag. mu woo ba ma ñëw mu ma si bitig bi jëndal ma bal comme man bi ma nekkee xale ba ne dama bëgg football mu génneel jëndal ma si benn bal bu bees tàkk ak ay tàngal jox ma équipe bi yëpp ñun samay euh, sama xarit yëpp jëndal leen aussi ay tàngal ñu dem mu woo ma man dong ma ñëw mu ne ma carrément bu ko wax kenn boo ko waxee dootu footballati si équipe bi maa ngi rappelé wu bu baax a baax mu may menace mu ne ma carrément bu ko wax kenn bul wax kenn for nga sac boo ko waxee kenn dootu footballati si équipe bi te dama lay dóor xam rek boo nekkee xale grand la woon si ñun moo nekkoon suñu entraîneur bu menacé sama loolu. ma ne ko ok ma jël sama bal jël tàngal yi ñu màcc bal bi ma téye ko dem suñu kër. man na xaw ma woon ne sax waa dëkk ba ñu ngi doon laajte sag bu réer affaire bi am na trois jours xaw ma deux jours suma ma juumul après troisième jour bi euh, si la ma sama papa gis si kër gi gis ma yore bal bu bees. mu laaj ma ndekete sama papa moom jot na si si information bi que daa benn commerçant. bu sakam réer te xaalis bu bëree bëri bëri moo ci nekk mu ngi koy wër il paraît que day dem jalan les paa bi sama bu mu déggee loolu mu ñëw gis ma ak bal bi mu laaj ma foo jëlee bal bi man ko noonu lii suñu bal équipe la parce que comme kee daf ma menacé wax ma sama leer mais comme sama moom tamit daf ma xam mu tiital ma nag tiital ma tiital ma si laa ko ne bal bi diw moo ma ko jëndal diw boobu euh, fee lañ doon ma for fa benn sac sac bi ma jokkoo sac bi dafa amoon xaal bu bëree bëri. sama bu mu ko waxee rek eggalilu ma sax wax si la tee sama loxo yóbbu ma ba si euh, chef de quartier bi damay wax ni maa ngi koy fàttali bu baax yóbbu ma sama ba tee sama loxo ba si chef de quartier bi mu ne mu ne chef de quartier bi diw moo jël moo faroon sac sac bi ñuy wër fan yëpp sac commerçant bi diw sama doom bi moo ko far. nee na diw la ko jox diw moo ko jëndal bal jëndal ko tàngal diw boobu ak ak ay xaritam. fekk fa commerçant baa ngi foofu commerçant bi ne moom c'est trop tard dem na si janaan bi ba pare loolu maa ngi koy fàttaliku bu baax a baax commerçant bi ne ko c'est trop tard moom dem na si janaan bi ba pare si lañ ñibbi après am na sa benn rakku buy sëy si dëkk bi foofu moom sama yaay ñoo bokk ndey kooku jëkkëram moo ñëw si moom ne ko ah comme diw dem na jalan fexeel nga dem foofu pour jalan bi mun a dindi lii parce que jalan baaxul mais sama papa nee na moom moom du dem jalan parce que moom jullit la du dem say jalan affaire bi nag noonu la demee léegi nag xam naa nu ma nu ma màggee affaire bi topp ma mais avant loolu samay sam papa gaañu si diggante bi te ma sam papa avant muy gaañu daf ma yóbboon may jàng arxuraan si benn dëkk bu nekk à côté foofu foo laa doon jàngee arxuraan diggante bi sam papa feebar bu muy feebar man ñu woo ma téléphone te foofu dama dama ma faa dénkaane sax benn ustaas bu fa nekk ustaas boobu sax euh, génn na àdduna mu dénkaane ma fa ustaas boobu gën euh, man la gën a bëgg taalibe yi fa doon nekkoon foofu ñu doon jàngee foofu yëpp man la si gën a bëgg ma jàng fa alxuraan ba wàccee kaamil sama paa bu muy bu muy feebar ñu woo ma téléphone ñu wootee kii paa bi sama oustaz la ñu woote man ma dem seet sama papa bu ma demee fekk ko mu tëdd feebar sama papa sama kanam la gaañu man sama papa laa gën a miir ko sama yaay ndax sama papa laa ëpp lu ma dundal ko sama yaay sama yaay mun na maa seede moom laa ëpp lu ma nekkal sama yaay moom mu ngi woon Dakar ak sama rakk xalaas dégg ko Njaay wax ji parewul de daanuwul ñu déglu déglu. li ma dal nii nag feebar la liggéey la tey anamu moo tax yi def nit lu bon baaxul te yaa ngi nii def nga doomu jaamul lu bon xëy nga dee nga ku ko def dee na lu lan moo ko fi jar. lan moo ko fi jar tey mu ngi nii man def na ma lu bon mais tey mu ngi nii jiitu na ma moom ak ku ko defee moom ak borom janaam yëpp dee nañu man dëkk boobu naa fa. su ma juumul ñaari yoon laa fa dellu dem ba si jalaam ba ñu ne ma carrément borom jalaam bi dee na moom mu ko bëggoon commerçant bi moom tamit dee na man sampaa papa ma jur dee na anam léegi mais maa ngi sant yàlla bu baax a baax parce que jalaam bi du man dong la dal nag xam naa sama yaay xam ju dara wala peut-être xam na ci dara jalaam bi du man dong la dal de képp ku lekkoon si xaalis boobu noonu xaalis commerçant bi jalaam bi ñëpp la dal yàlla suturaal na ma man moo tax ma ne maa ngi sant yàlla bu baax xëy na sama liggéeyu ndey ak sama ñaanu yaay moo ma téye ba léegi mais képp ku lekkoon si xaalis boobu tey xaalis bi yëpp ñu ngi prison am na ñoom gaañu nañu man donc pet man mi fat for sac bi man donc maa ci demul prison loolu xëy na sama liggéeyu sama sama liggéeyu yaay la ma siy sant yàlla bu baax a baax dëkk foofu ma fa delluwaatee su ma laajtee ana diw diw ma carrément diw mu ngi prison mu ngi Tamba diw mu ngi fële diw gaañu na xaaj ñëpp a gaañu kooku noonu suñu entraîneur kooku moo faral sac bi jox kooku moo gaañu te avant muy gaañ dégg naa dafa demoon prison ba sonn mujj na génn àdduna keneen ak keneen gaañu man donc pet man maa demagul prison te maa sant yàlla bu baax a baax di ñaan nag képp ku ma mën a jàppale rek te yàlla tax ba liñ nekk ci man deñ di ñaan si yàlla nag coono bu sama yaay di daj si man coono bu si sama yaay di daj si man ndax gis naa coono yi muy daj si man bu mu nekkee ma nekkee xabale xale ba léegi mu ngi sonn si man dafa bëgg njaboot bëgg ay doomam di sonn si ñun musul lekk bàyyi ñu lu mu wax yëpp loolu moo am ndax teg naa sama bët man maay taawam xamal lu gën a metti nga nekk magum jëmm nga nekk sa taawu yaay te mënoo defal sa yaay dara yàlla su yàlla def na nag lu ma am lu ma fartaatu dem ci séddoo ak sama yaay mais xam nga liggéey lu bon daal baaxul daal di gën a ñaaxaat nit ñi dañ bàyyi di defante nit ñi lu bon doomu jaambur xamul lu ko yaayam juree xamul lu yaayam daj ci moom yow nga xëy rek dem liggéey ko man lu ma wus man su ma wóoroon ne sax boobu su ko laaloon lii dina ma dal barki Seydina Mohamed du ma ko laal mais comme damaa nekkoon xale te wóor na bu doon instant bi nii du ma ko def mais xale rek yëfu xale xelu xale moo ma jàppoon mais sant yàlla sant yàlla bu baax a baax ginnaaw ko boobu ba léegi maa ngi dund te musuma si dem prison te yàlla mu may sutural booba léegi ma si gën santaat yàlla xëy na yàlla nag jaam bu mu bëgg rek lay teg nat sama yaay nag dina musa wax alhamdulilah na wax naa ko ko metti na trop Sénégal ba France mu ngi daj lu métti moom lu mu am am lu ko metti man mii di doomam maa gën a am lu ma métti barki Seydina Mohamed te su ma sañoon toog ne sama famille di jàppale sama yaay sama yaay lu mu doon def mu arrêté ko man ma koy defal ndax doo bu nekk loolu ngay ñaan yàlla mais moom xam na bu baax a baax a baax fi ma toll ci moom barki Seydina Mohamed gën a ñaan yàlla yàlla na ma yàlla suturaal yàlla jàppale ma ba liñ nekk ci man deñ ndax sonn naa trop tey du ma nekkatuma xale sonn naa trop maa ngi yore sama liggéey maa ngi yore sama liggéey di fayeeku salaire bu baax mais imagine kuy fayeeku salaire bu baax yore sa liggéey di def yi ñàkk fay doo xam doo comprendre di jël loo xamante ne te ma yu may jël mënu ma wax am na valeur barki seede sama yaay mënu maa doy seede amul valeur amul dara mais nag sant yàlla xam nga lu bon daal moo borom maa ngi sant bu baax a baax di gën a ñaaxaat sama yaay yal na ko yàlla may gudd fan ak wér ndax xam naa tey sama yaay bu fi nekkuloon kon ñun dañuy torox sama yaay bu fi nekk nekkuloon ñun dañuy torox di gën a santaat sama yaay sama yaay mu koy gën a ñaanal yàlla yal na ko yàlla may gudd fan ak wér yal na ko yàlla defal sutura coono bu muy daj ci man yal na ko yàlla fay xolam yal ko yàlla fay si barki yonent bi sama yaay sonn na trop trop yaay ji déggee xëy na dina gën dina ko gën a yokk courage. Mhm. mais abaa na gën a góorgóorlu rek ci faju mhm. li yàlla def la ab jàmm munul dara. mais li loxo def yàlla sàkk na loxo bu koy dindi abaa xanaa xamoon toll nañ ci jamono jigéen mënul am jëkkër luñ ko def la. tool nañ ci jamono jigéen di sëy mënul am doom luñ ko def la hmm. tool nañ ci jamono ni dëkkee wut liggéey heure bu xëyee dugg bunt bu ne mu fëgg ko du dégg ko ne liggéey a ngi hmm. luñ ko def la mais dañuy sóor ne bis bu ko yàlla dindee rek mu daj allo présidence Principal Europeu collaboração da Garuja, Zero de Ferguson, Victor Hugo, representante lá, vai para a representante do Brasil lá, vai morrer de resurreição, a carta da carta do capitão Zero construída em 1912. On a yàgg di lay ay dalla mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AF Léopold Sédar Senghor Diagne 1964 Abdou Diouf 82 wala 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñaawatu ñu xaar ba am kii woote bëgg a jot président kooku la waroon fan lay woote salaamaaleykum waaw salaamaaleykum sëñ bi na ngeen def ñu ngi sant yàlla bu baax a baax naka coono yi sant mbaa yéen a ngi ci jàmm joxel tur beeg sant beeg fi ngay wootee waaw bàcc xottu chauffeur transporteur. ah jërëjëf jërëjëf jërëjëf ana lu waral sa woote waat ci biir palais bi. waaw woote bi mooy. Hmm. xam nga ñun chauffeur si. dafa baaxoo. bu nee màggal jot na wala gàmm. ah daanaka day sunu traite. waaw ñu am luñ ko wax président. ay ca waa loo ci mënti xalaat yooyu moom na ngeen ñaax chauffeur si ba ñuy daw ndànk. waaw daw ndànk ji moom mooy jiitu. waaw ay ca ay ca kon waaye dafa am loo xam ne comme sunu traite la. faaw nu nagul noonu ñu yab nag waaw danoo war a yab. waaw waaw waaye moom ku a teree yab. déet xam nga dañuy dañ président dafa tàmbu. daanaka bu yu mel ni amee événement yu mag yi. ñu jël service dardu bu bari daal di tuur ci tali bi. waaw déet pour bañ surcharge bi rek. waaw dëgg la. surcharge bi rek surcharge bi moom. waaw baaxul baaxul baaxul boo waree yab 30 yabal 30 yam ca. waaw maanaam 29 ak apprenti bi muy 30. dama ni waaw. xam nga étape chauffeur. ah mooy màggal wala gàmm. waaw léegi màggal gi comme ñëw na. ah nan ñu may sunu sant rek mu yab ba yab ka ka ka kaw étagère yi. Ah, yàlla yàlla tere loolu du am loolu du am. Ah, mani mani ma loolu ah. sax alal jigéen cay am maanaam gëw ne dina barkeel. ah lu tax. ndax xam nga buñ la joxee oto. oto bii def trente places. waaw nga yeb ca soixante places. waaw kooku assurance ba sax garantie tu la. waaw loolu dëgg la de. waaw da di seet li gën ci yéen. waaw te gën ci askan wi. waaw mooy yeb normal daw ndànk. waaw li gën ci ñun mooy yeb lu baax di am versement. say poos fees nga dem boo demee taf taf. mani daal di jël si Touba fat fat naa kafe teguwaat ci kii bi loola romb nga. mani loolu baax mani daal di klaxonné loolu jàll nga teguwaat ci sa yoon. ab transporteur day digal ay chauffeuram lu baax. waa dama ni. mani gis nga boo demee rond point casse bi waaw. horaire ba fa ne tey yabee ca station ba. waaw da daw Louga Ndar. waaw boole di def Touba. waaw ah, waaw duñu surcharge mukk ci nombre lan koy teg. waa mais xam nga du du dem dañ la dañoo surcharge. waa waaye dañ ni maanaam xeeti bagage yi nga xam ne ñu ngi koy jël di ko yab maanaam bana yeeg ay bool yeeg yu mel noonu. waaw bu nu ko xañ ndax loolu dañ koy am lekk. waaw loolu ca porte bagage bala. mais na bañ a déborder. loolu moom na seen xel dal ndax bu soobee yàlla. màggal gi ñu ngi ñaan. ñëpp dem ci jàmm. dikk ci jàmm. ci barke Serigne Bamba. ci barke Serigne Bamba mi nga xam ne moo waral màggal gi. ayca kon baax na. waaye nag wax ji mooy. waaw. am nu may rek bu mu nekk dañu fonal dañu laaj papier yu jeex. ngir ñu mën a yeb dem. ci jàmm dikk ci jàmm. moom kay wuyu ma. waaw da ngeen di jëfee jëfinu Serigne Fallou la mu waxoon. waaw la mu waxoon. nikk bu dëgër. waaw te ne jàkk. waaw bu ne bu nga ni tekk. bu ne yàgg. nga ni yollu. bu ko defee ngeen màggali ci jàmm nit ñi màggali ci jàmm. la la la Fall waxoon mooy kondir. loolooy kondir.